ci la fi bàyyeekoo woon dem Barzak ci la fi bàyyeekoo woon wuy ji boroomam ci la fi bàyyeekoo woon wuy ji maamam kan laa lay wax Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy baax ban bis la 14 septembre 1997 dimanche am jooju nga xam ni asamaan si niis njanaaw yi di jooy garab yi di jooy muy taw yàlla nit ñi xam ni yàlla jël na ku rëy ci ñun yàlla jël na ku cher ci ñun Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy moomu nag moo ne woon Serigne Maodo ala Hadj Malick mun ko naam mu ne ko waxal jaam ñi ni leen képp ku ma soppoon ci am ñu ni leen képp ku ma soppoon ci àddina bu nu dajee yowmal qiyaam danaa la solal mbubb leer Cheikh El Hadj Abdoul Aziz moomu nag bu génnee àddina bisam dellu si war naa la koo jox lii nga partagé ko sa fukki moroom ak juróom-benn kenn ku ne jàngal maam Abdou fukki fatiha ak ñaar fukki salaatal fatiha ak ñaar fukki qul huwallahu ahad ak benn ñaan yàlla yàlla dolli leeru bàmmeelam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lim laa wa anta walidu maliki cheikhina ذاك الذي هو عمدة الأخيار الشيخ الحاج العزيز